Eh, ginnaaw bi jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ak wér di siyaare sëriñ Yaafi Busso al imaam eh, di am mbégte lool ci teewaat fii ci jumaa ji teewaat fi ak eh, njabootu Mandiaye Fall Lamine waa kër seexu Omar Diop di jëbbale si liggéey boo xam ne biñ ko tàmbaleeg léegi yaakaar naa bii mooy ñetteel bi yoon ndax ci koor gi indi woon nañ fi ab liggéey eh, ak màggal gi weesu ak koor ga ko jàll kon yaakaar naa bii mooy ñeenteel bi eh, ñu am mbégte lool eh, muy liggéey bu mag boo xam ne ni ñu ko waxe woon rek njabootu Mandiaye Fall Amine bu ñu sampaatee liggéey bu mel nii ci kër ga mi ngi jëm rek ci feddali suñu laxasaay ci liggéey bi nga xam ne waajur yi ñoo ko sampoon tàmbali woon liggéey bi ba liggéey bi tey mu yaatu eh, biñ ko sampee tamit eh, ñoom seen taxawaay dafa taxaw taxawaayu rek nekk ci bopp bi di ci soññee waaye liggéey bi jullit yëpp la liggéey taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp la eh, nga xam ne ren jii yaatal nañ ko képp koo xam ne rek def ko lu baax nga rek ubbil na la ci bunt woo la ci rawatina nag njabootu Cheikh Omar Diop njabootu Sëñ Matar Xari Lam njaboot njabootu euh, ñi nga xam ne ñooy euh, Ibra Falamine ak Samba Falamine euh, ak ñi nga xam ne tam ay dëkkandoo lañ ñooñu ñëpp tam kenn ku ci nekk jàpp na ci dugal ci loxoom rawatina sunu kilifa yi sëriñ Mouhamadul Habib Diop mi nga xam ne moo àndoon ak suñu waajur sëñ di Diop ñu doon taxawu liggéey bi tey ba yàlla dogal tey ji liggéey boobu njaboot gi sampaat ko ci kër ga feddliwaat ci seen laxasaay Euh, ñu le ñuy ñu ñuy xamal ne liggéey boobu defe ngeen ko nangeen ko doon defewaat indi nañ ko mu toll ci quatre vingt di mille euh, jébbal nañ ko sëñ Afi Bousso al imam ci teewaayu sëriñ Jili buso ñu ànd ak alaaji mi nga xam ne nag mooy coordinateur bi moom Baye Amdi euh, nga xam ne liggéey bi moo ko doon taxaw di ko di ko soññee moo soxna Bousso mi nga xam ne moo jiite soxna yi ak ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci régions yi nga xam ne euh, yi wër dëkk bi la euh, du ñu fàtte itam sëñ Modou Abdoulaye Diop mi nga xam ne moo nekk ci bopp Kër Mandiaye Fall Lamine euh, buñ ko tuddee rek damay wax ne tudd nañ ñëpp moo sëñ Cheikh Ngay Diop ak sëñ Maam Omar ñooñu buñ leen tuddee tudd nañ képp koo xam ne rek ci njabootu Mandiaye Fall Lamine ga kon daal ñoo ngi wax ne ñoo ngi leen di jaa jëfal bu baax te di leen xamal ne daal jëfal ngeen sëñ Touba fi nga xam ne mooy fi ko gënal ci fi ñu koy jëfal ndax fii kat sëñ Touba moo ko taamu woon waaw ndax dëkk bii moom kenn ku ne dégg na sëñ tubaa ak li mu wax ci tubaa digganteem ak jumaa ji tam kenn ku ne dégg na lim ci wax képp ku ci feeñ da nga feeñ te ku ci réer dootoo feeñ kon alaaji cant googu ak ngërëm li sant nañ mboolem ku ci jàppoon rek mbaa nga yéene ci mbaa nga jëf ci yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ tubaa di leen jaajëfal te di leen soññi nag di wax ne liggéey bu mag a mag a mag la. jumaa ji kenn ku ne gis na daayira Muxaddamatul Xidma taxawaay bi mu ciy taxaw bu koor gi ñëwee gis ngeen lu mat ñeenti junni doomu aadama ñoo fi ñëw bu màggal gi ñëwee kenn ku ne gis na fii li fi li li daayira bi taxaw ci entretien bi ak ci matériel ak ci matériel yi ñu fiy def mbooloo mu takkoo takk itam ñoo fi nekk ci màggal gi nga xam ne jëf yi ngeen jëf moom sëñ tubaa gërëm na ko ndax agsi na fi taxoon ñu ko ñu ko doon jëf jébbal nañ ko sëñ Jili Buso mu teg ko ci loxol daayira bi kon nag ñoo ngi sa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dellowaat cant gi ci loxol eh, alaaji mii nga xam mooy jëwriñ ji ànd koog alaaji sëñ Modou Diop mi nga xam mooy coordonnateur wu Kër Mandiaye fa Lamine di sant nag njabootu sëñ Omar Diop gépp sëñ Malick Diop xalifa sëñ Omar ne ci bopp bi di ko ñaanal mu wér te yàgg fi eh, ba lépp lu mu tam yàlla defal ko ko xel dal na sunu yaakaar dolliku na kon ñu jébbal alaaji kàddu gi ñu ngi jaar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi jaar waa der ëllu xidma bépp di ko teg ci loxo Serigne Afia Bousso mi nga xam ne si ne moo jiite kuréel gi kuréel gi nag moom waa Kër Mandiaye Fall Amine gépp ak waa Kër Simbar gi gépp ci lañ bokk ba jumaa ba léegi kon musuñu cee génn moom li ci ëpp mooy Serigne Assane wax na ko ci soñe bi ak ci mbir yi nga xam si ne moom la jumaa jiite woo te mu taxawoo ko man nag ma ci tuut tànk boo xam si ne suñu borom moo ma jagleel poste bi nga xam ne si ne mooy wàllum coordinateur bi ñi nga xam ne képp koo xam ne si ne sa addiya dugaloon nga ko ñi nga xam ne ne yegg si na jot nañ ci yëpp addiya yëpp jot nañ ci ñu ngi leen ciy wax di nga xam ne ne Serigne Touba nag moom ñetti moom da ko fonk lool muy xasida yeeg jumaa ji ak doom yi kon nag ci jumaa ji waa kër Serigne Omar gi ak waa kër Mandiaye Fall lañ jépp ñëpp feeñ nañ ci bu baax a baax kon nag ñi ngi xamal ne ñi ngi woowaa njaboot gi yëpp di nuyu nag di di di di di ko di teg ci loxo bi ci di teg ci euh, nuyoo bi sëñ Mandiaye sëñ sëñ Modou Blaye ak sëñ Mandiaye mi nga xam ne ñooy xalifa Mandiaye Falamine ñoom ñoo ñuy teete ñoo ñuy giite ñoo ne ci kanam ak sëñ Motulaa Diop ak sëñ Maam Seex Diop ak sëñ Assane mi nga xam ne mooy jëriñ ji mooy suñ bunt ci jumaa ji lépp luñ waa kër Mandiaye Falamine di di di dox moom moo moom moo ngi ca moo ñu teg ci yoon moo ñu gite parce que lii man koy doxal lu yitteel xel na lu waroon am la bu yàgg waaye suñ suñ borom ci moom la ko dogal moo tax tey daal liggéey macha allah waa Kër Mandiaye Fall mi daal seen xol seet na baa ñëpp nag ci liggéey koo xam si ne ci Mandiaye Fall mu bokk wala Sëñ Omar Diop ngi lay woo ci liggéey jumaa ji ñi ngi sopp daal fu waay nekk su ne koor gi moo la màggal Tuubaa ñëw na foo mënta nekk sa addiya fu mu mënta nekk soxla nañ ko ñu def ci liggéey jumaa ji ñu ngi woo ñëpp waaw waa Kër Mandiaye Fall mi waa Kër Sëñ Omar Diop jërëjëf ñu ngi jox kàddu Sëñ Asan Diop ci noonu ko alaaji waxe rek ñoo ngi jëfal ñëpp ndax xam na liggéey bi Eh, waa Kër Mandiaye Fall Lamine ñoom eh, ñoom ñoom ñoo koy coordonné waaye liggéey buñ ubbi la yaatal nañ ko woo nañ képp koo xam ne jëfkatu lu baax nga rek woo nañ la ci liggéey bi ndax liggéey bi matériel la bu jëm ci biir jumaa ji ak social bu jëm ci jumaa ji lépp luñ fi indi dañu ko def ci liggéey jumaa ji eh, coordinateur yi nga xam tam ñu ngi takk seen laxasaay di ko yaatal buñ ci tuddee Baye sàmba moom Baye Aya ak ñam àndal ñooñu itam seen i jëf agsi Euh, mboolem ñi nga xam ne tamit dañoo dégg liggéey bi liggéey bi nag wuy si ci ñooñu itam euh, cant gee ngërël mi agsi na ci ñoom kon daal ñoo ngi wax ne liggéey la boo xam ne daal woon nañ ci ñëpp waaw ñuy ñu ñuy sàkku nag sëriñ Afia mu ñaanal leen ñaanal noo ba liggéey bii euh, ñu am kàttan lu jumaa ji soxla rek loola ñu mën koo am kàttanu mën koo def waa loolu lañ ci doon indi ñoo ngi ñaan nag ñu teewee ko ay déwéni déwén ci barki waqde awaay jëli si na daamoo fi xidmati wa ab lahum maaraamoo inna li si na saarahon li xidmati fa lahumu diyaare wasal jannati jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëf jërëjëf kon xam naa ñoo ngi toog ak sëñ Jili Buso di suñ kilifa gi nga xam ne moo fi teewal daayira muxaddamaatul xidma eh, ci ci kàdduk sëriñ Afi Buso al imaam ginnaaw bi ñu jébbalee liggéey bi teg ko ci loxoom kon sëñ Jili mooy wax ci turu sëñ Afi Buso ci wàllu liggéey bi waa sëñ Jili noonu ñu ko leerale wan rek moom njabootu ma Njaay Fall Amin eh, liggéey bi biñ ko tàmbalee itam ubbi nañ ko ba yaatal nañ ko ba taalibe yi nga xam ne ak dëkkandoo yi ah, ak defkati lu baax yi ñëpp dañoo daal di am ci yéene jàpp ci ba ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo waaw kon ñu jébbal la kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Xasan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax baax. di eh, am mbégte mu rëy ci liggéey bi nga xam ne baaxoo ngeen koo def ci bépp xew boo xam ne am na jumaa ji eh, di njabootu eh, waa kër Fallami ñépp rek ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di xam ne yéen moom daanaka yéenay yéenay jumaa ji ndax bokk ngeen ci ñi nga xam ne yéen ci njëkk eh, yëngu eh, képp koo xam ne eh, di ciy yënguwaat rek ci seen ginnaaw la topp ginnaaw yàlla dafa def tawféex jooju suñ borom tawféexal leen ñu ngi ñaan mu mu mu gën a yokk gën a jëm ci kanam di wax ne lépp loo xam ne def ngeen ko ci rek suñ borom ful ko defal leen ko ay xéwal fii ak fa jëm. te yaakaar naa ba ngeen ko tàmbalee ba ak yokk rek ngeen ngeen ngeen ngeen ciy gis ñu ngi ñaan yokk googu suñ su dugg ci bayit woowu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa wax ne waq de hawaaij lasina daamu fii xidmati wa hablahum maraamu yàlla na dugg ci bayit woowu ñun ñëpp eh, def def xéewal bu baax a baax def tawféex bu baax a baax eh, te barkeel barkeel leen yéen ñëpp ci barkeeb sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin إني جعلتك في الدارين آفقة حسنا حسينا فكن وجيدا فلا تكن إلى نفسي شاهد من الجبين وحسن وأبه بالله آمين.